bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina mawlana muhammadin ilkarim wa ala ali beytihi ilkiram altayibin altahirin dawi ridwani wattamkin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhanahu wa taala di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa ak i saxaabaam ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di assalaamu aleykum di jiital ci nuyooyu ak ziyaar yi alxalifatul am lil muridin al cheikh muhammadul muntaqa di ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala sàmm ko aar ko ba naal yi mu naalal lislaam ak yoonu murit ma yeggale yépp te ñaanu ko ak moom di ziyaare bu baax mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mu tedd mii ñu nekk di réewum senegal leen ñaanal ñoom ñépp suñu boroom guddal seeni fan may leen wér ba taxawu giñ war a taxawu lislaam ñu def ca lu kawe seen njort di ziyaare bu baax it borom mi nga xam ne mooy sëriñ Abdou Saman Mbàkke mu sëriñ Sohaybu mu Cheikhul Xadim radiallahu anhum comme niñ ko baaxoo defee saabu waxtu wi jotee dina ñëw indi tomb boo xam ne dañ koy jàngat ngir mën a jariñante ak suñu mbokki jullit tomb tey bi nga xam ne nag moom lañ fa yéene waxtaane xam naa laataa ñu ciy ñëw muy lu jëm ci weeru wu màgg wi nga xam ne moo dëgmal di weeru koor di sangu mboolem weer yépp ndako la ko ab jullit war a waajalee bu dëgmalee dañu ñëw rekk ci dénkaane boo xam ne suñu sëriñ Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu moo ko dénkoon lenn ci ay taalibeem laata muy dem ci tukkib géej muy dénkaane bu yaatu lool boo xam ne maneef naa wax ne jotal na lool buñ demee ci téere bi nga xam ne mooy min wasaaya as al wala min wasaaya as-sayxi al-xadiim Ahmada Bamba Mbàkke bi nga xam ne waa daayira Rawdu Rayaahiin liggéey nañ ko liggéey bu am solo dañ ko cay fekk ak ci majmuwa bu mag bi nga xam ne sëriñ Abdou Lahad dajale woon na ko dénkaane bi nag yaatu na lool waaye dañ ci jël rek benn pàcc boo xam ne day jëm ci sellal jëf yi li ci nëbbu ak li ci feeñ muy jëf yu nëbbu yeeg yi feeñ yépp war gi nga xam ne moom la ko jaam bi war di sellal sëriñ bi tàmmulee ko yaa mi ijtahidu fi islaahi acmaalikum kulla ijtihaad wajmacuu bayna alxawfi warrajaa wala tactamidu bi acmaalikum wala ta'manuu kayda iblisa maa istum sëriñ bi nee na yéen mbooleem samay taalibe yéen mbooleem samaw nit na ngeen farlu na ngeen ci di yewenal seeni jëf gépp farlu waaye na ngeen di góorgóorlu ci di boole yaakaar suñu boroom subhaanahu wa ak ragal suñu boroom subhaanahu wa taala waaye bu leen di sukkandiku rekk ci seen jëfi kase waaye bu leen saytaane war ci ay pexeem te bu ngeen wóolu pexey seytaane fi wa génn a ngi dund ci kaw suuf muy tijjite gu am solo goo xam ne tijjee na ko ngir soññ mbooleem jaam yi ñuy góor góorlu a farlu ci di sellal seeni jëf waaye boole yaakaar yàlla ak ragal yàlla borom bi subhaanahu wa ndax ñaari laaf yooyu ci la ab jullit war di naawee waaye nit ki bañ di sukkandiku rekk ci jëfi boppam waaye bañ di wóolu pexem seytaane mu daldi wax ne rod na ci alxabaru almathuur muy xibaar boo xam ne dañ ko solo muy ab xadis boo xam ne dañ ko solo jële ko ci Muaaz ibnu Jabal di kenn ci saxaaba yi àndoon ak yonent bi aleyhi salaatu salaam Muaaz nee na am na benn bis dama doon dox ànd ak yonent bi aleyhi salaatu salaam yonent bi war ca war dal may togg ci ginnaawam yonent dafa war dal di koy teg ci ginnaawam moom Muaaf ibnu Jabal Muaaf nee na ñu dox ab diir yonent bi salaam dal di yëkkati bëtam jëmee ko ci asamaan daldi di wax alhamdulillahi alladi yaqdi fi xalqihi ma yasha ak cant ñel na yàlla moom mi nga xam ne mooy àtte ci ay jaamam lu ko soob yonente bi moo wax loolu daan ne ko yow Muaaz Muaaz ne ko la labbayka yaa sayyidal mursalin wuyu naa la yow sangu mbooleem ñu yàlla yónni yonente bi ne ko dinaa la nettali nettali boo xam ne euh, boo ko mokkalee dana la jariñ waaye boo ko sànkee yàlla suñ borom subhaanahu wa taala dana dog kiiraay li dox sa diggante ak moom ne ko yow Muaaz maa ngi lay xamal ne yàlla suñ borom subhaanahu wa bind na juróom ñaari malaaka laata muy bind asamaan yi te asamaan su nekk am na malaaka moo xam ne ma nga fa suñ borom subhaanahu wa teg ko fa daldi ne ko yàlla suñu borom subhaanahu wa def na ci bunti asamaan yooyu malaaka moo xam ne mooy bëkk néegu asamaan su ne am na malaaka moo xam ne mooy bëkk néeg ba fa ne kem na bunt ba màggee rek noonu la malaaka moomu màggee nee na jëf yi malaaka yi nga xam ne ñoom la ñu wooye alxafada ñiy bind jëfi jaam yi ñoom ci boppam bu ñuy yéegee jëfi benn jaam ci jaam ñi day am leer goo xam ne dafay fés lool ba mel ne ab jant waajooju bu yéegee bay waaj jot asamaan maanaam ay jëfam bu yéegee bay waaj a jot asamaanu àdduna malaaka yi nga xam ne ñooy xafada yi yi doon bind ay jëfam di ko baril ay jëfam di ko yéem di ko sellal waaye bu yéegee nag ba àgg ca bunt ba nga xam ne mooy buntub asamaan bu njëkk ba mu fekk benn malaaka boo xam ne dafay taxaw malaaka moomu nga xam ne mooy garde bunt boobu wax ki doon bind jafi jaam yi ne ko xifu wadribu bi hada al amali waj saaxibihi ne ko taxaw leen bu leen jàll waa jii de jëf jii mu doon jëf dóor leen ko ci xar kanamam man de maay boroom ana saaxibul xiiba man maay boroomu jëw nga ne bi mu nekkee ci àdduna daan jëw ay mbokki jullitam waaye daal di wax ne moom malaaka moom mu nga xam ne day xool rek jëw ci jëfi jaam ñi nga xam ne jaam boo xam ne danga daan jëw bu yéegee ba ci bunt boobu moom say jëf du jàll mu wax ne yàlla suñ borom subhaanahu wa taala daf ma teg ci bunt bi may xool jëfi jaam ñi nga xam ne dañ daan jëw nga xam ne amul ci kenn koo xam ne daan na jëw te bu ñëwee ba ci bunt bi dana ma jéggi jàll nee na ginnaaw ba ca suba ga malaaka yooyu nga xam ne ñooy bind jafi jaam yi bañ xëyaatee am keneen koo xam ne dañoo yéegal ay jëfam ba ba àgg ci asamaanu si ñaareel bi mu egsee ci asamaanu si ñaareel si malaaka mi nga xam ne mooy garde bunt boobu ne ki doon bind jaam ñi ki doon bind jëfi jaam ji ne ko taxaw leen man de jëfi jaam jëfi jaam bii de bu mu yéeg ndax moom kat li mu doon def lépp da ko daan def rek ngir bëgg ci poñeti àdduna waaye defu ko woon ngir jëmm yàlla borom bi subhaanahu wa taala te man suñu borom damaa teg ci bunt bi may xool képp koo xam ne yaa ngi jëf-jëf joo xam ne suñu borom taxul nga bañ a jéggi di jàll di ma romb nee na malaaka yépp maase di ko rëbb ak di ko móolu di ko soril yërmaane yàlla ba ni nga xamee ne noonu la ngoon di jotee nee su ko defee malaaka mi daldi yéegalaat jëfi ab jaam ci jaam ñi koo xam ne jëf ji day doon lu bari lool muy bég lool ci ay wooram waaye ay saraxeem ay taxawam guddi yu bare bari yum daan faral di taxaw su ko defee malaaka yi di réyal jëfam ak di ko sellal waaye nee na bu yéegee ba ca buntub asamaanu ñetteel ba malaaka mi nga xam ne mooy garde bunt boobu day wax ne taxaw leen ngeen jël jëfam ngeen dóor ko ci xar kanamam mankat kat maay malaaka mi nga xam ne ak rëy la suñ borom di xolloo ci jëfi jaam ñi daal di xamal ne képp koo xam ne yaa ngi jëf loolu dooma ma jéggi jàll mukk waa jii de daan rëy rëylu bi mu nekkee ci kaw àdduna su ko defee malaaka yooyu nga xam ne ñooy bind jëfi jaam jaam bi ba tey daldi am keneen koo xam ne dañuy yéegal ay jëfam mu leer naññi ba mel na ni ay biddiw leere waaye ànd ak kàddu gu rëy rëy rëy mu ànd ak ay sàbbal yàlla borom bi subhaanahu wa ak julli ak woor ak aj màkka ak umra waaye nee na su yéegee ba àgg ci asamaanu ñeenteel bi malaaka mi nga xam ne mooy bëkk néegu asamaan soosu moom it day wax ne taxawal leen taxaw leen te ngeen jël ay jëfam moom jaam bi ngeen dóor ko ci xar kanamam man maay malaaka mi nga xam ne li may seet ci jëf yi mooy koo xam ne lu mu jëf rek daf koy daal di naw te yàlla suñu borom subhaanahu wa taala daf maa digal kenn koo xam ne dana naw ay jëfam mu bañ maa jéggi di jàll moom kat lépp lu mu daan def moom waa ji daan na ci dugal ak naw lu mu def rek daf koy daal di naw réyal ko lool nee na moom Muaaz yonent bi alayhi salaatu salaam mooy wax mu ne malaaka yi doon bind jëfi jaam bi yéegalaat beneen jaam yéegalaat ay jëfam jëf ji taaru lool ba mel ne ab seet bu ñu waajal jëme ko ci waa këram ba bu yégee ba àgg ca asamaanu juróomeel ba jëf ji rafet lool jihaata nga ca aja nga ca mu leer naññi ba mel ne leeruk ab jant suñ boroom subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ko baaxe woon mu doon jëf-jëf jooju malaaka mi nga xam ne mooy garde buntu bo buntu boobu daal di wax ne euh, jël leen jëfi jaam bi ngeen dóor dóor ko ci xar kanamam bu mu jàll man may malaaka mi nga xam ne may boroomu keñaan nga xam ne keñaan rek lay xool képp koo xam ne yaa ngi ko doon jëf ci àdduna boo ñëwee ba egsi ci bunt bi doo romb jàll dal ne waa jii bi mu nekkee ci àdduna daan iñaane nit ñi yi nga xam ne moom la suñ borom subhaanahu wa taala gëneel yàlla nag sàjj na képp koo xam ne gërëmut dogalub yàlla borom bi subhaanahu wa taala beneen jaam ñu yéegalaat ay jëfam mu leer nañ ñi leer gu mat sëkk julli ya bari lool koor ya bari lool aj ya bari lool umra ya bari lool bu ñu ba àgg ca asamaanu juróom-benneel ba malaaka mi nga xam ne mooy garde bunt boobu dafay daal di wax ne man maay malaaka mi nga xam ne maay boroom yërmaande taxaw leen te ngeen jël ay jëfam moom jaam bi ngeen dóor dóor ko ci xar kanamam moom kat bi mu nekkee ci àdduna daawul yëram benn jaam waaye su musiba wala fitna masaana dal ci nit day mel ne ku koy yëjji wala ku koy ñaawal waaye du ko mettilu ba yëg ne lee ko dal amaana ëllëg mën na koo dal dal man may malaaka mi nga xam ne suñu borom subhaanahu wa taala daf maa digal bépp jaam boo xam ne bi mu nekkee ci àdduna da daan ñàkk a yërëm nit ñi ay jëfam du jaar ci bunt bi mukk ñu daal di yégalaat keneen ci jaam ñi ay jëfam nga am ne day jël alalam di ko joxe lu baree bari di woor di julli di jihaat sàmm lool jëf jooja buñ koy yéegal day am kàddu goo xam ne day mel ne ak dënnu waaye leer ba mel na leeru melxat bu ko malaaka yéegalee ba ca asamaanu juróom-ñaareel ba a malaaka ma nga xam ne nag moom la suñ borom dénk muy garde buntu boobee muy buntu asamaanu juróom-ñaar daldi wax ne man maay boroomu tudd waa jii de jëf yi mu daan jëf ci àdduna bëgg ci loo lenn lu dul ñu koy tudd ca jataay ya di ko yëkkati fa ñi nga xam ne ñooy jàngkat ya di yëkkati darajaam ca ñi nga xam ne ñooy nit ña am ak rëy ak màgg waaye suñ borom subhaanahu wa taala damaa digal képp koo xam ne ay jëfam loolu rek la ca jublu woon du jaar ci bunt bii di jàll ndax kii kat da daan ngistal waaye daawut def ngir jëmm yàlla borom bi subhaanahu wa te yàlla du nongul ab jaam buy ngistal ay jëfam kooko jàll ñu war a yégalaat keneen koo xam ne moom it malaaka yi dañuy yégal ay jëfam mu doon koo xam ne daan na julli daan na woor daan na aj màkka daan na umra doonoon na koo xam ne ku jikko woon jikko ju rafet la ku noppi woon la ku daan tudd yàlla borom bi subhaanahu wa malaaka yi di gunge muy juróom-ñaari malaaka di gunge ay jëfam bam jéggi xojub eh, muy kiraay yi dox digganteem ak asamaan yi ba àgg ci suñu borom subhanahu wa taala su ko defee ñu daal di koy taxawal ci kanamu yàlla borom subhanahu wa taala di ko seedeel jëf ju baax di ko seedeel ak sellal yàlla suñu boroom ne leen yéen malaaka yi nga xam ne yéen ay bind jëfi jaam bi maa ngi leen di xamal ne mankat maay aji fuglu mbooleem lu ne ci am xelam maa ngi leen di xamal ne kii ngeen di seedeel jëf ju baax jëf jii mu doon jëf amu ci lenn loo xam ne da ko doon jëf ngir sama jëmm waaye seetlu toon jëf ji ngir man waaye man de man yàlla borom bi subhaanahu wa taala xam naa lim nam moon ci jëf ji yàlla na ko sama rëbb ñeel na ko ndax moom kat war na mbooleem doomi aadama yi war le war na leen ci ay jëfam waaye man yàlla suñ boroom mënumaa wor ndax dara du umb ci man lépp xam naa ko muy xadis bu am solo boo xam ne euh, bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam net le Muaaz ibnu Jabal Muaaz dafa jooy jooy yu tara tara tar dal ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam kayfa najaat mimma zakarta yii nga tudd yépp di ay jëf yu baax yoo xam ne ay nit doon nañ ko jëf waaye seeni jëf biñ ko yéegalee ci asamaan su mën a doon buñ demee ba àgg danañ fa fekk malaaka moo xam ne day taxaw ne bu jëf ji yéeg nañ ko sànniwaat boroom nañ ko dóor ci xar kanamam mu ne ko yii nag naka lañ ci muccee yont bi ne ko yow Muaaz royal ci sab yonent ci wóolu mu wóolu yàlla boroomam mu laajaat ko ko ñetti yoon yonent bi sallallahu alayhi tontu ko tontu bi mu ko tontu woon daldi koy xamal ne ko yow maaf na nga téye saw làmmiñ ci doomu aadama yi bul wax lenn lu ñaaw jëme ci ñoom rawatina sa mbokk yi nga xam ne ñooy niti alxuraanul karim yi muy xadis boo xam ne Muaaz ibnu Jabal Xaalid ibnu Maadaan daan na wax naan Muaaz daan na bëri lu mu daan jàng xadis bi lool Euh, mu doon xadis boo xam ne sëriñ bi daf koo andi ngir wane rek ni nga xam ne noonu lañ war a sellalee mbooleem jëf yoo xam ne ñu ngi koy jëf ndax doomu aadama lépp lu mën a def ci àdduna bu fekkee ne ak sellal amu ca rek daanaka du ko jariñ fii waaye du ko jariñ fële kon liñ ci mën a jàngee bari na lool bi ci njëkk mooy bokk na ci bind yiñ mën a jàngee ci xadis bii mooy araam gi nga xam ne moom la araam jaam bi di melokaanoo ak a takkaayoo yenn ci caay-caayi biir yi lu ci mel ne keñaan kene mooy nit koo xam ne lu moroomam am du ko ko yéene waaye dafay mébét loola dañ ci moom loolu doon jikko ju bon joo xam ne mën na xañ nit ki ëllëg yërmaane yàlla borom bi subhaanahu wa taala waaye li ñuy wax al ujbu muy naaw sa jëf loo def rek daal di koy naw réyal ko lool loola doon loo xam ne lu araam la lu ab jaam war di mooy taniku la waaye bokk na ci liñ ci mën a jàngee ba tey mooy ngistal nga ne li ngay def da koy def rek ngir bëgg nit ñi dégg ko wala bëgg nit ñi gis ko loolu lu mat di mooy taniku la te bokk na ci yi araam yi nga xam ne ab jullit warta takkaayoo wala muy melokaanoo jikko jooju waaye bokk na ci liñ ci mën a jàngee muy danse bi nekk ci toggoo bàkkaar yu mag yi lu ci mel ne di jëw sa moroomu ab jaam di ko tudd foo xam ne nekk fa di wax ci moom loo xam ne amaana su ko déggoon mën na koo merloo wala amaana su ko déggoon mën nga caa am problème ak moom waaye bokk na tamit ci liñ ci mën a jàngee ba tey muy ñàkk yërëm nit ñi bokk na ci bàkkaar yu mag yi nga xam ne lu mat di moytaniku la waaye bokk na ci liñ mën a jàngee ci hadis bii ba teyit mooy jëf ju baax ju sell bokk na ci li mën a muccal jaam bi ëllëg yawmal xiyaam ci mbugalum yàlla borom bi subhanahu wa taala waaye bokk na ci liñ ci mën a jàngee ba tey ñu xam ne yàlla suñ borom dara umpuut ci moom wala dara nëbbuut ci moom lépp la xam yàlla xam na li ne ci xol yi waaye lenn luy nëbbu ci moom amul donte ne jaam bi mën naa jëf dara ci kaw mu nur lu baax fekk ne lam yéene ci biir rafetul loola suñ borom xam na ko ab jaam moroomu jaamam rekk la mën a nax waaye yàlla moom kenn mënu koo nax waaye bokk na ci liñ ci mën a jàngee ba tey ñu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku wàcce woon boppam la ndax ci njëlbeenu xaddis bi Muaas daa wax ne yonent bi daa war ci naaga wala lam daan war ku ne xam ne yonent bi giléem la daan war lu bëree bëri waaye dal di togg Muaas ci ginnaawam togg googu mu ko togg ci ginnaawam nag porté ko ci ginnaawam lañ cay mën a jàngee mooy yonent bi alayhi salaatu salaam ku wàccee woon boppam la ku wàccee woon boppam la kon loolu jàpp naa ne jikko la ju am solo joo xam ne war nañ koo roy ci ngën ji mbindéef sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi loolu mooy lenn ci dénkaane boo xam ne sëriñ bi dénkoon na ko lenn ci ay taalibeem laata muy dem ci tukkib géej gi su ko defee nag weeru màgg wi nga xam ne moo nekk suñu kanam di weeru koor dégmal nan lañ ko war a waajalee dëgg-dëgg ku ne xam ne ne weeru koor occasion la bu mag a mag a mag ngir laabal xol yi ci mbooleem gàkk-gàkk yu nëbb yi ak yu feeñ yi waaye occasion la bu mag a mag ngir kafaara mbooleem ñaawteef yépp maanaam ngir far mbooleem ñaawteef yépp waaye occasion la bu mag a mag a mag ngir fàggu ay yiw moo tax waykat ba waxoon ne ramadaanu aqbala yaa rifaaqu fa sammiru wadaul maakila wal malaahi wal kasal nee na weeru koor dëgmal na yéen samay àndandoo na ngeen woggu bu dëgër a dëgër a dëgër te bàyyi lekk bàyyi fo bàyyi tàyyel sahru siyaami bihil ujuru tadaafat sahrul ibaadati wa saadati wal amal nee na weeru koor mooy weer wi nga xam ne suñu borom subhaanahu wa taala daf ñoo digal ñu koy woor waaye weer la woo xam ne suñu borom da cay ful ay yool weeru jaamu yàlla la weeru texe la weeru jëf la mu wax ne xad xassahu rrahmaanu bi sawmi alladi yajzi bihi ajran wa laysa lahu mithlu wa tazawwadu min xayrihi laa taftaru id annahu yamdi sarian fi ajal nee na yàlla suñu borom subhanahu wa taala miy aji yërëme moo jagleel weeru koor mu doon weer woo xam ne dañ koy woor yàlla nag suñu borom subhaanahu wa taala di ci fay fay goo xam ne amul lenn lenn lenn luñ koy nurooleel ci ak fay mu ne kon nag na ngeen yóbbaloo ci aw yiw bu leen tàyyi mukk bu leen yuqat mukk ci weeru koor ndax kat weer la woo xam ne yam di sarian fi ajal ñoo ngi nii di ko séentu waaye bu ñëwee buñ caamee fukki fukki fan buñ toogaatee amaat yeneen fukki fan balaa yàgg nga dégg ñu ne ñu ngi waajal kori nga xam ne day dem ci lu gaaw a gaaw a gaaw kon loolu lu mat di bàyyi xel la jullit nag li war ci moom mooy muy waajal weeru koor waajtaay ba gën a rafet fexe la nga xam ne mooy li war ci moom mu di ko jëf guddi yi ak bëccëg yi mu di ko dundal ci ay jaamu yàlla yu mag lool waaye mu xam ne kat weeru koor bu dee dëgmal war na koo teeru ci gan anam ku ci amoon gan ci ñun ñii da nga koy teeru bu baax a baax su la wooyee ne maa ngi ñëw léeg-léeg da nga defaraat sa kër léeg-léeg da balewaat léeg-léeg da nga luqarti ngir lan ngir bëgg su ñëwee fekk sa kër jàkk wala fekk sa néeg jàkk gan gi nga xam ne nag mooy suñu gan di weeru koor néeg bi nga xam ne ci lañ ko war a wàccee mooy suñu xol kon war nañoo laabal ñuy xol bale ko ba mu set ci mbooleem caay-caayi biir ba bu ñëwee fekk ne xol yépp day daal di set loolu nag ñi ngi koy jaaree ci tub gu sell lool ci mboolem bàkkaar yi ak di jéggulu yàlla borom bi subhaanahu wa taala ak delloo tooñaanga yi ca ñañ tooñoon ak di yéene yéene ju rafet ndax yàlla suñu borom subhaanahu wa taala daa wax ci alquraanul karim wa tuubu ilallahi jamian ayuhal muminuun yéen mboolem ñi gëm yàlla borom bi subhaanahu wa taala na ngeen tuub jëm ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala te loolu de su ngeen ko defee laallakum tuflihun amaana ngeen jëlee ci ak texe gu bàyyi ko ci yàlla borom bi subhanahu wa taala te yonente bi nee woon na attaayibu min adanb kaman la danba la ki nga xam ne mi ngi tuub ci bàkkaar di jéggule yàlla fu mu toll nee na mi ngi mel ni ku mës sa def bàkkaar waaye nag ki nga xam ne fu mu toll moom day nuur rek ci ay bàkkaar du tuub mukk waaye lu mu def bàkkaar xeeb ko defaat beneen bu ko gën a rëy di dajale ay bàkkaar rek mi ngi mel ne kuy yëjji wala kuy ñaawal yàlla borom bi subhaanahu wa taala wala yaasu billahi taala waaye bokk na ci ni ñuy waajale weeru kor mbokk yi ñuy sax ci jaamu yàlla waaye ak di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala weeru koor fekk ñu fi ak jàmm ak salaam ñu man koo woor dundal bëccëg yi dundal guddi yi bëccëg yi dañ koy dundal ci woor waaye guddi yi dañ koy dundal ci ay jaamu yàlla ay naafila ak yu ni mel boroom xam-xam yu njëkk ya de di nit yàlla yu màgg di dawal bu njëkk ba ñoom de dañ daan ñaan yàlla luy tolloog juróom benn weer ngir weeru koor fekk leen fi lu jiitu weeru koor di ñëw juróom benn weer yi ko jiitu saa buñ daan ñaan dañ daan ñaan suñu borom subhaanahu wa taala fekkaloo leen weeru màgg wii di weeru koor waaye ginnaaw ba suñ wooree ba koor ga jàll danañ toogaat li tolloog juróom benn weer di ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala mu nangu leen koor googu nga xam ne moom lañ daan woor ñoo ñooñu ñooy ñi xam dëggi dëggi koor bokk na ci seen ñaan yañ daan ñaan allahuma sallim naa li ramadan wa sallimhu lana wa tusallimhu minna mutaqabbala yow suñ borom ñoo ngi lay ñaan yàlla nag ñu muccal ba bu weeru koor bu dee ñëw danañu fekk ñu amug wér mën a jaamu yàlla mën a jëfe ndigal yi nga xam ne moom lañu suñ borom subhaanahu wa taala sant waaye na nga muccal weeru koor ci ñun waaye nang ñu def ñu doon ñoo xam ne jaam jaamu yàlla yiñ ciy jaamu nang ñu nangul mbooleem jaamu yàlla yépp loolu de bokk na ci ñaan yu baax yi nga xam ne gaa yu baax ya daan nañ ko ñaan bu weeru koor dëgmale waaye mbokk yi bokk na ci ni ñuy waajalee weeru koor mooy di bég bu weeru koor dëgmale dañoo war a bég ab jullit saabu bu gan gu màgg gii dëg malee di weeru koor saa boo ko gisee rek xar kanam ga mbégte moo ca war di feeñ waaye li am léegi nag mooy bari na jullit yoo xam ne su weeru saabaan duggee muy weeru baraxlu muy weer wii ñu ne wala weeru rajab weer wi ko jiitu lu jiitu koor ñaari weer yi ko jiitu ca la ñu tàmbali daanaka di wax wax yoo xam ne day wane luy wane dëgg-dëgg ne ñoom day mel ne jékkuñu ngir waajal gan gu màgg gi koor gi ren nar naa tàng koor daa metti man de dama am feebaru sàngam di porter ay malaata yu kenn xamul te moone ne ñooñee boo maytuwut dara dalu leen ragal koor donguma leen jàpp loolu nag ab jullit warta teeroo noonu gan gu màgg gi nga xam ne mooy koor waaye dañ ko war a teeru nag ci mbégte kenn ci boroom xam-xam yi danaan wax naan man lam yaarif sawaabal amal saqulat alayhi fi jamii al axwaal nee na koo xam ne xamul yool bi nekk ci jëf yi ngay jëf nee na kooku jëf yi muy jëf day diis ci moom maanaam koor ki mett ci moom dëgg-dëgg mooy ki xamul yool bi nekk ci koor waaye koor ki muy woyof ci moom mooy ki xam yool bi nekk ci koor nga ne buy woor moom day neex ci moom coono bi nit ñi di yëg li nit ñi jàmbat muy xiif wala mar wala yu mel noonu moom du ko jàmbat mukk waaye lan la cay yëg mooy ne ëllëg yamal xiyaam suñ borom subhaanahu wa taala dana ko ci fayt tiyaaba ju rëy rëy loolu mbokk yi lu mat di bàyyi xel la waaye nag mbokk yi ñi nga xam ne dañoo réere dëggi dëggi yool boobu nag ñooy ñi nga xam ne bu weeru koor dëgmalee ñooy wax wax yoo xam ne daanaka doo xam nu koy firee wax yu doy waar yoo xam ne di ko jëmale ci weeru koor mel na ñoom koor ñëw gi muy ñëw da leen di xatal li di déranger da leen di seene teew fukk weer ak ñaar fukk ak benn yi yépp saa boo bëggee lekk-lekk saa boo bëggee naan naan la ca dagan lépp dagan ca yow benn weer képp ñu digal la nga woor ko woor goo xam ne day farata ci yow loolu wax dëgg yàlla jàpp naa ne lu war a yomb ci ñun la waaye lu war a neex ci ñun la lu war a neex suñu bakkan lay doon waaye warta doon loo xam ne luy naqari suñu bakkan lay doon léeg sax da nga gis ay nit ñoo xam ne dañuy sawar lool ci jaamu yàlla bu koor gi doo ko dugg boo demee ca jàkka ya waxtu woo dem da leen fay fekk buñ dee la ñooy fees dell ci jàkka yi waaye suñ demee ba am fukki fan daanaka daal boo duggee ci jàkka yi doo fa fekkati mbooloo mu bari loolu nag bokkut ak ni nga xam ne noonu lañ war a dundalee weeru màgg wi nga xam ne mooy weeru koor